maamam nit ñi di ko romb mu naan xool leen dof yi <laughs> cest à moom jàppee na boppam ne moo wér nit ñi di ko romb di doxi seen soxla mu naan regardez moi ces fous là fekk moom te fekk moom moo léegi nag xam nga loolu c'est catastrophique bu ñu demee ba réew toll foofu dëppi lors cest amul lenn luñ fi waxagum man gisaguma ko amul ci benn plateau bu ma gis benn chroniqueur ñii société civile bi nga xam ne ñu ngi jéem a équidistant mm-hmm. wax loo xam ne doo ci duut baaraam depuis lool depuis ñii bi ñu jëlee pouvoir mhm. chaque jour lu gars yi wax ci plateau bi ne mais lu palpable la luy duut baaraam mais teewul ba léegi gars yaa ngi lay teewul ba léegi ñeneen ñaa ngi gëm mais personne ne comprend personne ci nomination yi non j'ai dit personne ne comprend. je comprends mais mais mais nag il faut respecter il faut respecter l'intelligence des autres. non non je comprends pas. xam nga yow da nga am loo d'accord gëm. daba ak jaaykatu caaf beeg. nañ leen da nañ leen d'accordal seen gëm. daba mhm. daba li ma wax lu leer lañ la li nga wax su ma ko bëggoon wax. Mhm. moom laay wax man ku ma xam-xam ne li ma bëgg a wax laa bëgg a wax. lu ma loo dégg rek ma jénn ko fii xamal ne loolu laa wax bul insinuer bul ma deformeel bul def su ma leen bëggee wax leneen lu gën a garaaw li nga wax ni ci digg bi na fekk rek ma gëm ko ci digg bi laay jaar man faalewu ma li ma gëm ma bëgg koo wax na ñaaw na rafet na nekk dëgg te ma gëm ko man noonu laa mel kii apprécier mooy xool nu mu koy rafetee yooyu sénégalais yi def non dëgg la mais waru ko woon a waax parce que day kii day naa man loolu bokkul ci sama philosophie tant que c'est dëgg ma gëm ko dama koy wax. dëgg c'est relatif. non man laa wax. dégg bañ ko man ma gëm ko man. man ma gëm ko waaw d'accord ne luy dëgg ci yow bi wax naa ci yow bañ na mën na bañ nekk dëgg si keneen. non te nga respecté te nga respecté sénégalais yi. dabax seen gëm-gëm. nga respecté leen ko. dabax manoo maa jaxase da nga jàpp ne ñuy wax ay dof lañ. respecté sénégalais yi ñoom ñu d'accord nangu ay waxu dof. li ma wax lool laa wax li ma wax loolu laa wax quand même bul ma jéem a jaxaseeg nit ñi nee naa la su ma bëggee wax loolu dama koy wax xooluma la ci ragaluma leen ci après naa ci dee wala déggoo li ma la wax mhm. lii ma wax nii contente-toi de ça loolu laa wax te loolu laa a wax te loolu gëm su ma gëmee lu ko gën a ñaaw dama koy wax sans gêne sans hésitation loolu na ci sa xel dal mhm. man du ma ñuy toog ci plateau di aaral am ay waxu plateau ak ay waxu mbedd li may wax fële laay wax fii ku ma enregistré jarukul nga koy teg boo boo teeyee tuuti rek bu vendredi jotee bu ma ñëwee ndumbelaan waxaat ko <laughs> amul lu ma ciy ragal. Hmm. lu ñu wéet ci néeg maa ak wax noppil rek bu ma ñëwee fi dinaa ko waxal sama bopp bul ma transformer mën naa waxal sama bopp li may wax. Hmm. voilà ci nomination li ma doon continuer ci nomination yi. mooy que ne ñu ñu nominé boobu ba léegi cité na fi sànq kaaw RTS mais li xew RTS actuellement ñu ci bëri gis nañ ko situation ba fa am mais rien que ci avance su tabaski ñu ne ñu kees gi moo amul xaalis. waaye yow jour tabaski nga signé contrat Wally Seck vingt millions say employé leen jox avance tabaski quelle contradiction mais jusqu'à quand mais da ngay da ngay yaxanal xaaritu RCS yor oto de cent millions yor salaire u plus de cinq millions ou cinq égal à cinq nga ne da ngay yaxanal da ngay yaxanal ci ko am cinq cent mille moom ngay wàññi mais yow sa juróomi millions yi nag sa oto bu jar cent millions bi nag mais ñu ne loolu kenn ko wax et ñu bëgg a continuer loolu plus de deux cents postes amul benn buñ ci càmbar amul benn buñ ci def enquête de moralité amul dara ñu dem ba ci biir nag yu mujj yi nag ñu commencé muy am affaire u mbokk mm. dañ ko fi doon bañ bërki démboo njaay mais il faut ñoom yaa ngi wax respecter sénégalais yi mais na jiitu ci yéen mais respecter leen sénégalais yi li ngeen waxanteeg ñoom ngeen dem ci ñun waxuñu leen ngeen nekk yàlla wala ngeen jékki-jékki def Sénégal mu dàq. New li mu wax est duñ ko bàyyi xel dénk aussi ka nga wóolu. kan ma ka nga wóolu yow. boo non mais non mais sur cette lay wax très honnêtement. man ànd maa bokk ci ñu def ferewu seen appel à candidature man damaa toog ci ma ne lii ñuy wax d'accordu ma ci. mais dañ maa saaga woon jamono yow yaay kan yow da xam dara Ousmane Sonko moo ëpp xam li mu wax xaw ma nangam na. ma ne leen man li ma jàpp te gëm ko bokk na ci gore ma ànd ak Mouhamed ànd ak Mourtala di xeex benn affaire Omar di ma xeex. ak dabaax bañ ñu jot ci ñun ñett ñu xeex ko ba jot ko. ma bàyyi leen fi di woo Omar Sow ak dabaax mi doon bañ ma jot ci loolu. wala ma dénk leen ko yéen ñi ma doon xeex pour ma jot ci ñii la ñoo ma gën a jege ñoo gën a xam sama philosophie ñoo gën a xam sama politique ñoo gën a xam suma programme. donc su may jox ñoom laay jox mais sauf ko su ma amee sama waane bijj mariné. waaw sauf ne damay def appel à candidature ñu fàttali la ko. waaw loolu nag mooy ñëwaat souvent ñun lay rappelé rek. loolu mooy ñëwaat souvent quoi sa waane. c' est là où se trouve le problème leneen ngay def. c' est bien. tout ce que je veux dire. ah on a fait que waaw bon.